asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi <clears throat> bokki jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ginnaaw bu nu jotaatee ndigal ci sëriñ Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke mu jëw si ci kër gi nga xam ne kër magam la waaye ak njabootam ne fi di kër sëriñ As moom Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke ndigal li jaar ci sëriñ siidi Mbacke xalifab sëriñ As Guédé mu feggoo ak ay rakkam yëpp ak taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi ndigal loolu jëm ci lan mooy màggal wala ñaan gi ñu daan defal sëriñ As Gédé ci njalbeenu koor gi muy bis bi mu tànnoon dëkkaale ji ak boromam subhaanahu wa taala yal na yàlla tabbal ko jannatul firdawsi bis boobu nag moo dëgg malaat waaye xam ngeen ne bokk yi mu daje ak xew-xew bi nga xam na moo xew ci àdduna bépp loolu moo tax sëriñ Sidi woo njaboot gi fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Modou Mamoun mi wax ci aw turam mu leeral ñu bis boobu nan lañ ko fas yéene defe ren jii ngir moytandiku li nga xamante ne bii moo di dajale mbooloo mi kon ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Mouhamadul Mamoun. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ak mbokki talibe yi ak man di ne di dégg suñu kàddu ñoo ngi yëg suñu kàddu ci turu Serigne Sidi Mbacke mi nga xam mooy xalifab Serigne Asgede ñaan sama borom yàggal ko ak mbokki mi rakkam ak mbokki talibe bis bi ni ko sëriñ Fallou si la waxee ndigal loolu la ñu am ci sëriñ Sidi mu jëlee ko ci sëriñ Abo mi nga xam ne mooy sëriñam mooy mooy mooy jëruñam ci kër sëriñ Touba bis bi mooy bisub sëriñ Asgari bi ñu daan def ci koor gi sàmbaram dogal mu dëppoo nag le 2 mai ñu waroon ko def le 2 mai xat xat yi jamono yi xew ba tax sëriñ bi diisoo ca kilifaam muy sëriñ Abo mu am waneen yoon bu mu ko ci jox ne nañ ko ci defee kon ni ko sëriñ tax digle bis bi dàquñu ko. sëriñ bi dafa wax ne kenn ku ci nekk foo ne ca daan ñëw ci bis bi na ko defee fa nga fa nga nekke muy njàngum alxuraan njàngum xasida ak berneel ci moytu eh, dajalo bi comme ni ko ni ko sëriñ bi waxee la ci sëriñ bi dolli it mooy dafa wax ne mboolem fu waaye nekkoon ci daan njàng alxuraan eh, ak aki i xasida li limu mu at li mu kaamil ya eh, na ko jàng buñ ca àggee nga yónnee ko lim ba ñu xam ñu xam lim ba nan la ca ca moytu dajaloo bi ak it euh, ni ko sëriñ bi bëgge rek muy Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ndigal loolu la jot ba tax mu ne daal bis bi dàquñu ko le 2 mai la comme dañ ko daan defee dañ koy defee ba léegi waaye nag joxuñu kenn ku ci nekk fa nga ne nga nga defee ko fa euh, ci sa kër euh, jàng fa xasida jàng fa alxuraan benneel fa nga xam ne ñoo la fay fekk su demee nga xam ne yii jeex na xëy na balaa booba sembrom dogal yii woyof bañ bañ dajale bañ bàyyiwaat bañ euh, joxewaat rassemblement bi mën a nekkaat su boobaa it ñu seet beneen méthode bu dul bii boo xam ne dañ ko daan kenn ku nekk rek defee ko fa ko ci sa kër ci sa kër ndigal loolu la sëriñ Sidi mu nga xam ne mooy xalifa sëriñ Asgire joxe woon Euh, ndigal ne nañ ko jot li mbokki talibe yi ak mbokki jullit yi loolu loolu mooy ndigal li. jërëjëf <clears throat> kon mbokk yi noonu mu ko waxee rek euh, Cheikh Mouhamadul Mamoun sëriñ Sidi xamle ne nee na ñaan ak tuub ak sàkk sarax kenn du ko bàyyi ndax jamono daf koo laaj kon dafay bëgg bu ñu àggee ci bis ba rek fu waay mën a nekk muy njabootu sëriñ Asgede mm, kenn ku nekk toog sa kër defe ko fa eh, ñi nga xam ne ñoo la daan fekk siit kenn ku ci nekk la nga ca daan def mën nga koo yónnee te toog waaye jërut kenn di def déplacement su ko defee bis boobu ñu eh, alxuraan ji ni ko daaray kaamil yi daan defee daaray ju nekk la nga daan jàng ci alxuraan soo ko mënee yokk nga yokk ko te yónnee ko lim bi mu xam mu toll mi ngi ñaan nag bu ñu ci bis ba te ñu defee ko noonu len lañ cay fas mooy yool bi suñ borom jotale ci sëriñ As Guédé ak mboolem njabootu Cheikh maam Cheikh Anta Gam mokkal nekk fépp waaye mi ngi ciy ñaanit suñ borom saafara si jàngoro ji ci àdduna bépp génn ko fi ñëpp wér kenn ku ci nekk delluwaat ci sa sogo ñaan it sunu borom mu gàttanduñu ak ndimbalam kàddu yooyu moo bàyyi ko woon ci sëriñ Sidi moom sëriñ As Gédé jaar ci Cheikh Mahamadul Mamoun ak ay rakkam di ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Abo mi nga xam ne mooy kilifaam mu jëlee ndigal loolu ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu